pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ngeen dégg déguerpissement te déggu leen recasement sénégalais yi lan lañ doon wax marchand ambulant yi ma mbokk yi ma leen di nuyu li ñu doon wax mooy lan mooy fi ñuy recaser ñu ñëw leen ñu waxtaan pour la première fois dégg ngeen déguerpissement mais déggu leen recasement fan la ñuy recaser fi mu ci biir géej gi xale yaa ngi dem géej gi mooy sëkk yi li may wax ni c'est factuel kenn mënu ko weddi doom yi di faatu ñoom xam nañ li may wax boo demee suñu dëkk ba la tey di mbuur tey am na ñu dëj seen i doom te xamuñu ndax dee na wala deewut désert bi la même chose waxuma nag ña ñu tëj ca Maroc ña nga ca Maroc ñu tëj leen ci prison yi waxuma nag ña nekk Espagne waxuma ñi nekk feneen ak feneen ak feneen loolu bu dul yaakaar bu tas xaw ma lan mooy yaakaar bu tas le président de la république est-ce xam ngeen lu mu def bi mu demee euh, Bakel. dañu dañ ne les président président conseil départemental yi ànd ak maire yëpp dañoo daje ne bu ñu sañoon nga ñëw ñu yóbbu nga gis li xew fii may wax ak yow ils sont très en colère parce que dana leen loolu duma ko mën man daal bàyyi leen ma comme léegi am naa roppalaan ba may wut nguur gi nag aw moon roppalaan waaye léegi comme am naa roppalaan léegi avec une bonne euh, une machine à café yooyu yëpp ci kaw bàyyi leen ma rek ma nekk ci kaw survolé euh, ñu may toppatoo ci kaw su ma paree delluwaat sama dëkk delluwaat Ndakaaru Njaay C'est ça fait. C'est inadmissible. Au même moment, il y aussi une danse du scalp au niveau de Dakar Arena. C'est inadmissible. Donc, entre Bakel ak Tambacounda la fa xewoon ñaaw na trop. Bougane Gueye Dany démb heure bi à pareil moment ci la ñuy tàggatoo ak moom la tête de liste di ko nettali moom bañ ko indee Tamba di ko wax di ko préparer même ci vie carcérale di partager ak moom expérience am xam nga loolu gàcce la recul bu mag moom moom koy nettali démb dañu fa fekk ay soxna yoo xamante ni ay ay ay maire lañ ay ay soxna yu baax démb ñu toppatoo ñu ñu le ñuy wax ne ko keroog bi ñu lay indi fii ñun ñoo la doon tertu kon waa Tamba tamit gàcc ngaalama tedd liste bi dina si ñëwaat bu baax a baax a baax li may jeexalee mooy di santaat bu baax sénégalais yi yi nekk si biir réew mi di wax ne liñ doon bañ démb di dànkaaf ñu naan du am ñuy dànkaaf ñu naan du am ñuy dànkaaf ñu naan du am tey jii même chose la ñu gisaat ñi am information yëpp xam nañ li may wax loolu moo tax ñun ñu am obligation wax ak sénégalais yi ne leen lii xeeñ neexut jegewu ko jegewu ko et le le gouvernement doit arrêter d'utiliser les moyens de l'État doit arrêter d'utiliser la justice doit arrêter d'utiliser les forces de l'ordre et de sécurité nañ leen génne dans tout ça démb je raconte une anecdote démb bi ñu demee Tamba toog mais démb ñi demoon toog foofu ci biir tribunal bi toog la ñu def mais du ñu ay du ñu ay samba boy du ñu ay va-nu-pieds mais ñu toog ci biir tribunal bi tranquillement comme parce que am na ñeneen ñu ñu fa fekk ñu toog mais ay forces de défense et de sécurité ñëw ne jot nañu ordre nee nañ ngeen génn ci biti mais tout de même ñi ñëwoon waxuma sax noo seulement waxuma sax ne ay ay ay ay anciens parlementaires ñoom ñoo ñëwoon ñoo xamante ni taxawal pour seen réew di di di góor góorgóorlu sax pour ñu changer la les la les condition de ces forces de défense et de sécurité mais quand même nous étions avec le maire de la capitale du Sénégal c'est mais ñu jël ñu daal di ñuy génne ci biti sànni ñu ci biti te lu ne mënoon naa xew bi ñuy génn le maire a pris le de leur dire est-ce ci biti. suñu génnee parce que lu xew kon yéen responsable donc vraiment euh, loolu laa ne woon naa ko partager ak yéen di wax di appeler aussi à la mobilisation générale de tous les sénégalais Bougane Gueye Dany ni ma ko waxee woon keroog ci garde à vue bu mujj bu mujj ba bu njëkk bi ne waa ji dafa waxoon ne quand ils sont venus chercher les musulmans je n'étais pas musulman sama yoon nekkuti woon ma toog ba ci ne sama yoon nekku ci ba ci yàgg ñu ñëw chercher les chrétiens sama yoon nekku ci ma ne naa toog du ma chrétien ñu ñëw seet si les juifs ma ne sama yoon nekku ci duma ma juif waaye biñ may jël si man chrétien nekkatu fi musulman nekkatu fi juif nekk fi pour défendre ma donc faisons très attention képp ku wuuteeg ñoom kàddu dinañ la bëgg a faagaagal te encore yu fois bi may jeexale mooy ONAS dafa war a leer ASER dafa war a leer Cheikh Oumar Diagne li mu wax kilifa réew mii kenn mësu koo wax nit continuer toog ca pale ba ñee ñi fi jégo ñi fi jóge woon dañ doon wax ne dañu teg coude ci dossier waaye nag maa ngi yëgal sénégalais ñii dañoo toog ci ay dossier xam nga ñee coude lañ ci tegoon xam nga coude sax di nga ko mën a seen ñii dañoo décider toog ci ay dossier te loolu on ne l'acceptera pas donc sénégalaises et sénégalais faites confiance à cette belle coalition de Sàmm Sa Kàddu te incha allahu taala diggante ngor ak jom la ñu bëgg a am ak yéen incha allahu taala du ñu nekk lu dul des députés du Sénégal incha allahu taala dinañ dem gën a contrôler juróom-ñetti milliards yi ñu yóbbu nañ ko fële te ñun ñu commencé woon sax suñu contrôle de l' action de l' ñu ne ñu du ngeen ko fi defee kon bés bu ñu joxee mandat yóbbu ñu assemblée nationale ci lay gën a neex dinañu gën a joyanti li nga xamante ni loolu la ñu fas yéene def ci réew mi encore une fois ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. di gërëmat la presse di leen sant ci seen rôle bi ngeen di def faralu leen kenn dégg naa premier ministre bu génnee ne seen presse faralu leen kenn ñëpp ngeen fi nekkal moo tax yéen du ngeen toog ci plateau du yàq kenn du ngeen toog ci plateau du ndékkee kenn du ngeen ci plateau di añe kenn du ngeen toog ci plateau di njogonikoo kenn du ngeen toog ci plateau di reere kenn te loolu lu am solo la rawatina ñun ñi nga xamante ni dañoo gëm yonent bi salaatu wa salaam foofu laa jeexale dafa wax ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul lim yéene boppam la yéene moromam mais beneen bi dafa wax ne ki gën ci yéen mooy ki nga xam nit ñi mucc nañ ci loxoom ak làmmiñam loolu nag jàpp naa ne presse bi ñëw ko moom na ngeen fexe ba nit ñi mucc ci seen loxo mucc ci seen làmmiñ ndax Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nee na vous avez une mission prophétique et le prophète ne doit faire que prêcher la bonne parole asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam di nuyu waa Sàmm sa kàddu avec à sa tête député maire Barthélémy Diaz honorable Thierno Bocoum honorable la presse situation bi ñu tax a toog fii yéen ñëpp xam ngeen ko muy acharnement muy injustice muy xoqatal boo xam ni candidat bu bokk ci coalition sàmm sa kàddu daf ci nekk victime je veux nommer le président Bougane Gueye Dany yéen ñëpp vous êtes des témoins de l'histoire parce que intelligence artificielle may na leen ngeen xam lay xew fële ca Bakel Bakel nag dafa nekk zone bu ma miin gis ngeen fi nga xam ni foofu la nekkoon di ko survolé mu nekk Kounkané c'était à 9 kilomètres de Bakel côté opposé président Bougane fi ñu ko arrêté nekk 14 kilomètres de Bakel ñoom ñaar Bakel nekk seen diggante cela veut dire quoi am nañu distance su 23 kilomètres yu dox seen diggante léegi damay laaj yéen sénégalais yi au nom de quoi ban loi moom mooy permettre tey sunu njiitu réew bu waree teew fële ca Kër Massar man mi nga xam ne damaa nekk place de l'indépendance ñu mën maa arrêté loo ni ma doo dox sa convoi wala doo wàcc dox vingt trois kilomètres est-ce que dégg ngeen li may wax ki nekk Kër Massar président de la république war na mën a empêcher président Bougane ba nekk place de l'indépendance mu vaquer à ses occupations ñun ñëpp nag xam nañu ni dañu am un premier sinistre boo xam ni il dansait il chantonnait pendant que Bakel lançait un cri de détresse loolu moo tax ñi nekk ci sàmm sa kàddu ak président